asalaamaaleykum mbokki internaute Allô Sénégal ginnaaw ba ñu leen nuyoo di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen lu dul jàmm jàmm ko gën yàlla na jàmm sax fépp ñu koy doxee di ko waxee tey jii nag ñu ngi teew fi nga xamante ni moom moo di ci Allô Sénégal ngir fas yéenee génn waxtaan ci coow li nga xamante ni xew na fi muy affaire de lomotif xewee fi nga xamante ne mooy sunu dëkk sunu lépp di diwaanu mbuur Euh, bi coow li amee boobu ba léegi nag dañu ne patt noppi mais dañuy wax ba wax jotee ndax buñ waxut dinañ def loo xamante ne wala dinañ wax loo xamante ne ñun waa Mbour euh, ëllëg suñu ëllëg euh, suñu der dina yàqu ba fow ndax à chaque fois boobu léegi nit ñi ñu ngi wax tey jii nag ñu fas yéene see waxtaan def si ab jàngat euh, si trent vidéo yi nga xamante ne moo xew li tax mu am ak fan la amee ak kan ak kan la ndax boobu ba léegi am na ñoo xamante ne ñu ngi leen siy tuumaal ba seeni ay waajur di leen si bundu xataal bundu xataal yu metti donte ko nag duñ mën a publier tous les vidéos mais dinañ si wane quelques vidéos yoo xamante ne euh, nit ki dina si xam euh, wala dina si jàngat loo xamante ne ëllëg dina ko jariñ euh, partie par partie la ñuy waxtaane tey maximum de concentration ngeen déglu ko di début à la fin ngir ngeen mën a comprendre parce que da ngay gis depuis démb ba léegi yaa ngi gis stat yi nit koo xamante ne du gis sax vidéo di si wax loo xamante ne leeru ko wala ngay tuumaal doomu aadama dinañu waxtaan si cinq partie laataa ñiy euh, wane réellement naka la film bi wala trajet bi demee euh, fan la xewee ak kan kan moo ko euh, publier ak depuis kañ la vidéo yi tàmbalee génn parce que affaire bi jàpp nañu affaire de saison la mais di début à la fin ak ban vidéo lañ mujjee génnee ak réellement pourquoi ñuy publier video yi loolu daan si ñëw bi si njëkk bi biñ publier majeur vidéo yi jot a gis yëpp Euh, ñan ñoo si am problème wala jamono bi ñan la seen dër muy jigéen ñi ba tax na à chaque fois première gars attaque ni léegi euh, yaruñu ñi nga xamante ne moom moo di suñu doom te pourtant doom yi pourtant parents yi ñu ngi yar bu baax a baax a baax parents yi ñu ngi éduqué seeni ay doom mais xam nga rek ñi naan nit ki bu jubee jub na waaye bu dëggee dëgg na am trois parties yoo xamante ne dinañ ko souligner laataa ñuy dugg si débat bi bi ci njëkk mooy kii publier bi ci topp mooy ki nga xamante ne mooy jëf-jëf ji bi ci topp mooy mooy comme ni ma njëkkee moom moo di parents yi bi nga xamante ne moom moo di njëkk euh, à chaque fois vidéo lomotif ngay dégg te vidéo lomotif mu ngi tàmbali depuis 2019 mooy si temps li nga xamante ne moom moo di euh, Covid bi 2020 la njëkk li nga xamante ne moom moo di wane vidéo lomotif mu nekkoon fee sa cité mixta ba depuis ba vidéo boobu génnee lañ tàmbali def ko mel ni challenge à chaque fois ngay gis yeneen vidéo à chaque fois ngay gis yeneen vidéo arrêté woon nañ ko nag Adamo ñëw vidéo yi wàññeekuwaat Adamo dem si biir arrêté ñu gisaat ni gars yi dañoo commencé waat tey jii ñu ngi gis 30 vidéo lomotif ñu bees tax problème bi. si góor ñi la wala si jigéen ñi la première question am ñu ñëw daal di ne à chaque fois jigéen ñi ñoo koy waral pour pourquoi li nga xamante ni moom di complexe ak xaalis ak daray àddina ma war ne xaalis loo ko yor-yor lu mu bëri la bëri la bëri ëllëg si biir dafay dem. xaalis boo ko yoree chaque fois dalay wax ñaari baat yi defar li war si man baa man ma def li war si yow li war si moom mooy nga def si moom li nga xamante ne moom mooy suñu borom gërëm na ko xaalis bu defee li war si yow moom mooy pousser la loo xamante ne ëllëg waroo ko def moo tax nit ki xaalis bu mu la tax def loo xamante ne ëllëg da nga koy rëccu ñu ñi ne góor ñi la góor da nga yor sa xaalis jigéen ñaan la nga ne ko duma ko may si gratuite da ngay def dara wala doo am dara te pourtant am na sa rakk bu jigéen boo bàyyi kër gi bëggoo ko ko def noonu te pourtant ki la jur jigéen la wala sa mag bu jigéen bi def si yow lu baax jigéen nga moo tax nit ki loo yéene sa bopp yéene ko sa morom loo bëggul ku ko def sa rakk bul ko def rakki jàmbur. deuxième question bu ñëw poser la question ne xaalis moo koy waral wala complexe au début da ngay nekk jeune ñi ne xamul dara mais à chaque fois léegi da ngay gis xale yu ndaw xam nañ lu baax xam nañ lu bon. yëf yi bu yàggee du complexe mais lan la ñu di bëgg lu bon te pourtant lu bon kenn bëgg ko moo tax nit ki lépp loo xamante ne warloo na ak sa morom def ko lépp loo xamante ne warloo na ak sa morom def ko li la warloo ak sa morom moom mooy lan ngeen séq la nga xamante ne moom moo di jiiñ ma te pourtant chaque fois ñu ngi yàq daru jigéen ñi te pourtant moment boobu am na jigéen yoo xamante ne am nañ qualité am na li nga xamante ne moom moo di fulla am na jigéen yoo xamante ne boo leen doon jox àdduna ak si biir te li nga xamante ne moom moo di seen ngor moom mooy lépp am na jigéen ñoo xam ne dañuy sàmm seen ngor tey ak ëllëg nekkul à chaque fois li xew ñu attaqué jigéen ñi non non mais am na si mois boo xamante ne ñun góor ñi ñooy def loo xamante ne jigéen ñi ëllëg buñ leen di lii ñoom la parce que vidéo yëpp seetaan ci benn par benn benn par benn lépp lépp li ko waral à chaque fois kii gaañu ki jigéen ki lay doon que ce soit ku góor ki kanam gi du feeñ ku jigéen ki la ñuy vidéo après buñ paree di ko multiplier di ko multiplier di ko multiplier muy dem di dem di dem tey jii mbir mi xew na depuis démb ba léegi seetaanal benn par benn wala nga déglu den nga à chaque fois jigéen a bëgg lu bon jigéen a bëgg lu bon te pourtant jigéen bëggul lu bon parfois ñu ne nit ki day manqué xaalis moo tax muy def loolu non am na ñoo xamante ne moom moo di xaalis manqué nañ ko lool waaye ñu ngi seen ngor ngor mooy lépp nit ki mën nga am alal nga dee fàtte ko wala nga nelaw fàtte ko mais gis sa ngor da lay topp ba sa biir bàmmee lu waaye def boppam kenn deful kenn dara mbokk yi àddina du kër lépp loo fi gis dafay jeex à chaque fois ñu accuse ñi nga xamante ni moom mooy def vidéo yi ne dañoo bon bu ñu jugee kenn ndax ku nekk yaa ngi def loo xamante ne bëggoo sa moroom xam ko ku nekk yaa ngi si loo xamante ne tey jii buñ ko siwaloon tey jii sa àddina yëpp dina yàqu moo tax mbokk yi nañuy gën a booloo suñu biir di waxtaan suñu biir boobu moo nekkoon premier partie bi deuxième partie bi ñu dugg si li nga xamante ne moom moo di fi mbir mi xewee moo di si diwaanu Mbour Mbour ba affaire bi xewee nañu ne bettuñu parce que ñu dëkk Mbour dañuy def li nga xamante ne moom moo di yu bon te pourtant am nañu dëkk mbuur am ful la boo xamante ne keneen ki dëkk feneen amu ko ki dëkk Mbour mu ngi xëy di liggéey di daan doole di teral ay parents am est-ce que réellement ñi defee jëf ji Mbour mbuur lañ dëkk. loolu tey dina leer dinañ ci def ay révélation yoo xamante ne ku si nekk di nga xam nan la mbir mee demee pourquoi pas ñu ñu commencé fii parce que dañuy wax pour bu ko defee bu ëllëgee yëf yu mel nii bañ a dal keneen sa moroom bu ko dala dalee yéene woo ko de mais bu ko lo lenn loo xamante ne lu métti dale yow fexe nga jàng si à chaque fois nga dégg mbir poser trois questions yi lu tax mu xew fan la xewee nan laay def ba du xewati parce que vidéo yi c'est pas la première fois ñuy gis genre vidéo yi mais nan la ñuy def ba genre vidéo yi jóge fi dangay nekk jeune nekk ci sa yoon jàpp ni bu asamaan si doon wàcc sax boo ko téewee bu taxaw nga yor xaalis jigéen ñëw wax la soxlaam nga nekk bu la defal lii doo ko defal li mu bëgg mbokk yi nañuy xoolaat bu baax a baax li ñuy def xam ne ëllëg nañu fi jóge xaalis bi ñu yor di ko tiitaroo ëllëg dañu koy wan gannaaw te keneen moo ko yor mosoo fee gis ku fi yor xaalis ba dee nga yor 5000 francs yi te 5000 francs yi man rek maa ko yor non non da koy jël jaay ko jox ko keneen keneen jox ko keneen te daray àddina jarul yenn yi lu waay def boppam kenn deful kenn dara bëri na waa koo yee ba mu yeewu nga daal di koy bàyyi muy nelawaat lan moo waral loolu di nga jël nit ki digal ko lu baax teg ko si yoon bu baax nga bàyyi ko mu delluwaat mbokk yi mu ñuy jugé nit ñi fois. nit ñi ñoo bon wala ñee ñoo bon nañuy fexe ba li ñuy def bu ëllëgee bu ñu ko defaat nañuy fexe ba lu ñuy def bu ñu koy répété nañuy fexe ba dara bu dalee nit muy metti yow bul fexe def ni moom fexal yeddi ko mu jugee ko waaye yow fexeel ba bu ñu la fekk si daray jaaxaan à chaque fois tamit ñu ne parents yi la est-ce que tey di nga am sa doom 24 heures sur 24 nga koy surveiller am na doom yoo xamante ne xel biñ am parents yi amuñu ko am na doom yoo xamante ne fit biñ am parents amuñu ko nañu fàttaliku démb portable demeewu fa woon nii ñu ne léegi portable ma xew moo tax yu bëri di feeñ te pourtant portable bi mu xewee am na doom yoo xamante ne seeni ay parents jaar nañ si yoon bu difficile mais ñoom bi ñu ñëwee jaar nañu seen yoon bu ñi nga xamante ne seen parent ñu am ko nit ku nekk yaa am sa ngoru bopp nit ku nekk yaa xam ne lii baaxul sa parent li mën si yow mooy defal la lu baax yedd la li des nag yow la xam nga nit ki bu jëlee décision bon kenn mënu koo teree bon nit ki bu jëlee décision baax ñëpp dañ siy jàpp bu baax malgré parents ñooy def yëpp mais après yow mi nga xamante ne yaa am sa fulay bopp ndax nit ku nekk ak jukkoom jukko moom mooy lépp gis nga sa jukko foo ko mënti boo ko yoree foo mënti dem da koy yóbbaale mën nga dem si kër di baax baaxlu mais trois jours après jukko bi danaan dalay fekk si jukko mooy lépp dañuy defaraat jukko yi di referaat xol yi ndax xol ndax la bu setul di def dara tey jii boo yoroon sa bool dem lu mel ni genre xew nga jël ko yóbbu ko mu bu ñu la xoolee dañuy jàpp ne ku wéri di nga alors que ni carrément wér nga moo tax xol mooy ndab danga nga jël exemple te xol bu setul di def dara loolooy deuxième partie bi troisième partie bi nag ñi nga xamante ne moom moo di ak diine bu doon que ce soit ngay jullit que ce soit ngay chrétien que ce soit lu mënti doon ngor mayu la nga def genre vidéo di ko ñëpp di si ëllëg da nga yori doom débat bi li si ëpp solo moom mooy ku góor ki ak ku jigéen ki loo concerné nekkul dañuy ñëw directement ku jigéen ki nekkul dañuy ñëw attaqué directement ku góor ki mais justement dañuy ñëw waxtaan si li nga xamante ni moom moo di entre ñaar ñii di góor ak jigéen parce que ñoom ñaar ñoo séq bi ba lu mel nii am. ñoom ñaar ñoo séq li nga xamante ne moom moo di mbir mi ba affaire bi jur lii parce que du affaire de diine mais la la ngor sa ngor lum la mooy bul ko def te loo xam ne boo ko defee ëllëg si biir bu génnee ñëpp coow kon loolu boo defa da nga xool bu baax laataa nga koy def loo bëggul ko la ko def bul ko def mbokk yi lan lañ mën a jàng si mbir mi que ni Sénégal jeunesse bi léegi fa moom sexe lañ gën a favoriser fawum sexe lay jël def ko àddina te àddina du kër lépp loo gis dafay jeex fawum sekk lañ jël def ko kon challenge maa la daaxale vidéo maa la gën a salte vidéo deux jours après mais lii amul benn sens parce que boo ko defee ñu ne lal dañ lay coow deux jours bàyyi la mais coow deux jours bàyyi la yaa ngi cax sa bopp ëllëg si biir da amee doom gis nga boo nekkee jeune am na fooy yem da ngay jàpp ne fii la àdduna yem mais fan ngay xamee ne àdduna moom solo nga dem ba nekku magum jëm nga romb ak sa borom ëllëg mu am doom romb la ak doomam yow nga am doom sa doom mënoo am ak moom li nga xamante ni moo di amour paternel wala amour maternel nañuy xoolaat bu baax a baax li ñuy defar chaque fois di ko vérifier tey jii nii. mbir mii nii lan lañ si mën a jàngatee lu bari bari bari bari bëri mooy que nit ki booy def dara bëggoo kenn yëg ko bu ko def que ce soit nga jàpp ni du ko yëg ak nga ni nit da koy yëg nga yemale nañuy def lu baax te du koy rafetal dañu fiy jóge ëllëg te ëllëg boobu noonu lu ma a suuraale la gis nga bàmmeel bee ñu jëm loo fa deful doo ko fa fekk bàmmeel xat na trop te ñetti fanu bàmmeel ku ko dul xalaat lu la neex defal li moo nekkoon tey seen jàngat jëm si mbir mi explication yi guddi na lii nekk première partie deuxième partie bi dina ñëw troisième partie bi dina ñëw ndax mbir mi foog leer ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ngeen abonné bés cloche notification incha allah ñi pause tuuti def deuxième partie bi troisième partie bi dooru ñëw bu ko defee ku si nekk xam réellement naka la mbir mi demee jaa ngeen jëf